sama teewaay fii ñaar moo ko sabab benn bi conseiller municipal la ville de Dakar donc muy activité ville de Dakar beneen bi responsable la ci RACTES RACTES mooy réseau des acteurs des collectivités territoriales réseau des acteurs et collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire loolu mooy sama ñaareel mbir bi tax ma teew ndax tey dañu woo jigéen ñi ak ndaw yi nga xam ne ville de Dakar daf leen di financer par rapport à sa politique d'autonomisation des femmes donc lu am solo la lu am njëriñ lu te mu nekkoon troisième phase jaadu woon na ma teew. gis nañu démb euh, Gaston Mbengue yow nga bokk si yeewu askan wi euh, gis nañu Gaston Mbengue génne ay kàddu yoo xam ne euh, ñu nekk si yeewu askan wi la plupart génne nañu ay communiqué di ko ñaawlu loolu noo ko gisee. turam sama xel parce que nit nit dafa war sàmm kàddu nit dafa war xool la muy wax. dafa war yiw dafa war tedd Gaston dañu jàppoon ni kilifa la ci réew mi mais waxu démbam gi wane na ni wax dëgg yàlla loolu du waxu kilifa du kàddu kilifa ak tout le respect que je li mu wax waru koo wax rafetul jekkul jaaduwul dëppawul ak moom dara waru te loolu warul jaral kenn dara muy def loolu li politique réew day jeex démb Gaston lu nekk wax na ci parti socialiste Gaston lu nekk wax na ko ci Khalifa Sall tey la mu bi wañ mu wàcc woon ñëpp a koy bëgg taqal nit ñi bëgg dëkkal nit ñi fu ñu dëkkul loolu jaaduwul rafetul di yëfu jullit du yëfu gor du yëfu jullit. léegi lan ngeen di xaar par rapport ak président de la parce que ça de non violence ñu ngi koy violence. écoute xam nga violence wax rek mais xamuñu parce que violence dana nekk ci kàddu violence dana nekk ci doxin violence dana nekk ci jëf. te yooyu yëpp boo ko seetee ci benn côté bi rek lay jóge ki nga tudd léegi ban côté la nekk ki fi jógoon aussi saaga wolof ban côté la nekk ki fi jógoon ni dafa yor jaasi wax président li di wax ban côté la nekk yooyu yëpp ci benn wàll gi la donc nañu atte dëgg te bàyyi naafeq yi naafeq du jullit jullit du doon naafeq lu ñuy def fii mu yéex mu gaaw keroog yow ma xëyam daañ ko defoon nañ ko seet nañ ko sellal nañ ko yiwal na jullite man de maa ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla na ma yàlla def dëgg dëgg dëgg julli. jërëjëf mais bien sûr c'est nous nous tous nous sommes des Barthélémy Diaz nous serons avec lui nous serons avec lui nous serons présents avec lui et nous retournerons inchallah avec lui. écoute ndëgg sërëx du du ñàkk ñun daañu yàlla nu yàlla may xel ak kattan bu ndëgg solo bu ñu am ñu tegg ko jàll dem luy luy dem la dara mënu ko téye te yàlla lu ma taxawal kenn mënu ko daaneel